ñu ngi ko tuddee enquête USEN usage de drogue au Sénégal mm-hmm. c'était une enquête boo xam ne li ko ko taxoon jóg mooy recenser dans la région de Dakar le nombre de personnes ki consomment des drogues injectables héroïne cocaïne ak ak crack ñu recenser leen et puis def ci ñoom test pour xam doomu jàngoro sida bi naka la toll ci seen biir mm-hmm. cette enquête la avait mobilisé 1324 personnes exactement mm-hmm. junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti nit yoo xam ne fii région de Dakar la ñu nekk héroïne dañuy jël cocaïne dañuy jël ak crack. kon ñun ñu ngi doog comprendre pourquoi cocaïne bi dugg Sénégal. bien sûr 1324 personnes rien que dans la région de Dakar. je marché est là bien sûr. dans la région de Dakar je dis dans la banlieue de Pikine Guédiawaye Parcelles Assainies et Rufisque encore que Mbour boole wuñ ko ci buñ ko yób boole woon Mbour mu yokk mhm. parce que xam nañ consommation bi au niveau de la côte aussi naka la demee mhm. Mhm. mais rien que dans la région de Dakar on a eu 1324 personnes qui consomment ñoom ñëpp héroïne cocaïne ak crack waxuma la tuxu yàmba waxuma la naan ah, sàngara waxuma la yeneen ñooñu loolu la ñuy et parmi cette catégorie a des femmes junj ñu ko sànq am na ay jigéen ñu ci nekk c'est vrai que góor ñee leen ëpp mais un nombre important de femmes aussi ñu ngi ci. Mm-hmm. donc bi ñu defee ci ñoom test VIH bi on a trouvé qu'il y a un niveau de prévalence de de VIH. loo xam ne dépassé na largement le niveau national. le niveau national mm-hmm. parce que niveau national bi tey ñu ngi ci ay mm-hmm. à l'époque c'était un peu moins de 1 pour cent parce que Sénégal bokk na ci gën a basse prévalence en Afrique fii. li nga xam ne réalité muy nëbb mooy que dans la population générale la prévalence est très basse mais dans la population am na ay groupes yu fi nekk ay nit ñu fi nekk ñoo xam ne prévalence bi dafa jéggi dayoo ci ñoom. ñiy jaay seen bopp. jigéen ñiy jaay seen bopp. góor ñi nga xam ne dañuy si ak seen moroom góor ñu leen di wax góor jigéen. Mm. ñi nga xam ne dañuy consommer drogue yooyu ñooñu ñoom la ñuy wax les population clés. Mm-hmm. boo ubbee plan stratégique lutte contre le sida au Sénégal. ñooñu la ñuy tuddee les populations clés. Mhm. parce que taux de prévalence bi dafa jéggi dayo ci seen biir. Mhm. donc loolu moo tax ñoom ñu jël leen comme cible principale pour réduire l' infection donc mhm. loolu en termes de chiffres am nañ taux boobu et je pense que loolu dafay wane rek ne le problème il est là. et gravement je pense que c' est important que ñu xam ne dëkk bii ñu nekk. Hmm. on est dans un contexte boo xam ne drogue moom mu ngi laal jeunes yi bu baax a baax. et drogue yi nga xam ne dañuy yaakaar ne yeneen réew yi rek la am amul fii ku ko jàpp yaa ngi nax sa bopp. drogue bu hmm. feeñ États-Unis 24 heures lay def ñëw Sénégal drogue bi ngay wax sànq ñu koy tuddee couche. Libéria hmm. la gën a feeñ couche couche. Libéria la gën a bëri li diggante Libéria ak Kenya foofu la hmm. soqi ko mais rapidement mu ngi Sénégal fii am na ñu koy jëfandikoo déjà am na ñu koy jëfandikoo déjà. donc euh, mélange la de produit boo xam ne bu doy waar. Hmm? Euh, man man man man gis naa benn waaye bu ko consommé ñu waxtaan parce que ñun dañuy nekk ak ñoom ñuy waxtaan hmm. mais waa ji daf ma waxaan daf dañuy wax sax que am na ay ossements humains yu ñu ci boole. loolu la ñu wax mais na sax ay ossements humains yu ñu ko ci yu ci nekk. loolu la ñu koy trafiqué. loolu la ñu wax ñu ngi koy trafiqué def na ay ravages au Libéria hmm. moom. dañ déclaré sax nu ñu ko tuddee urgence médical xaw ma l' état du Libéria daf ko déclaré urgence.